ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu la notification. c'est bon. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw man maa ngi tudd Thiam Sow maa ngi dëkk côté Kër Massar. waaw. waaw wax kontaan rek kontaan rek wax dëgg yàlla Lions sagal nañu kontaan nañ ci ñoom trop comme que indi lañ ndam li rek alhamdulilah. macha euh, man moom dama mës a ni. gars yi dañuy indil ndam li ndaxte di ma leen gisee seen détermination rek dama jàpp ni dinañ indil ndam li te te loolu lañ def kon maa ngi kontaan bu baax a baax Aliou Cissé ak ay. non Aliou Cissé moom 100 vote 0 vote lañ koy wax dañ koy wax gàcce nga laama di ko wax gaynde gi. gaynde gi waaw gaynde à 100 pour cent. waaw. fay naa leen kontaan mbégte moo xamante ni lii football rek moo ko mën a maye man Thiès laa jógee may mën a laa tudd maa ngi jóge ba Thiès ñëw pour seetaan si li fekke suñ ko fi ñu koy joxee parce que lii ça fait ñu koy xaar li dafa temps ñu jot ko parce que lii ndam la boo xamante ni ñëpp a ko àndandoo bokk du benn mom li football rek mo meuna bolé football mo meuna bolé nit ku ñuul ak nit ku wéx mo meuna bolé ñaan ñu xolo ñu and ñuy ñaana suñu lion yi indi waat yeneen yudul yi parce que dafa jot di nuyu fàllu sama doom nee Sadio Mané bi bi moom mën a rafet na Baye Salam sant Alioune baye dëkk Cambérène oui Sante Yalla alhamdulilah avant tout Xol bu sédé rek Xol bu sédé kessé kessé kessé. li ay ñuy dem di ñàkk ay at ñu dem di ñàkk ba yàlla suturaal nu ren yàlla may nu ak dimbalu sunu borom kese kese kese yàlla rek yàlla kese kese lii du kenn yàlla kese la di ko sante yàlla mu baax xol bu sedd xol bu sedd garaa wallaay xol bee sedd yàlla na nu jik yàlla nu jik yàlla nu jik jaajëf. maa ngi lay fay man maa ngi tudd Mohamed Niang maa ngi jóge Cameroun waa tey sama xol moo sedd ndax lii dama ko yàgg a xaar dama yàgg xaar lii pour Sénégal Sénégal tey li fi xew doy na waar sama xol moo sedd grand man daal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg maa ngi ñaanal képp kuy sénégalais yàlla na jàmm sax ci réew mi jour yi lii yàlla na leen jik jik peuple sénégalais yi maa ngi ñaanal ñëpp sama xol sedd na jërëjëf Sénégal ca kaw ci ngir gëna a mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification